asalaamaaleykum mbokk yi tey jii de alxames fukki ah, fan ci weeru koor di guddik fukkeel ga ak benn sëriñ Sohaybu wax na ci xuratul ayni guddik fukkeel ga ak benn ku ci julli ñeenti raaka raaka bu ci nekk gannaaw fatiha nga jàng innaa anzalnaahu juróom-ñaari yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaari yoon qul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon bu sëlmalee mu wax laa hawla wala quwwata illaa billaahil aliyyil aziim juróom-ñaar fukki yoon julli ci yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki yoon bokk na ci ngeneen naafila googu des na ko jégal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj talaay ju ci ne des na ko bindal tuyaaba yi yàlla am at dana mel ni itam ku goreel junniy jaam saraxi junniy deenaa regal junniy ñu xiif wodd junniy ñi rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf dana ko jégalul yàlla moo xam lu wow la wala lu tooy te des na ko musal ci balaa yi ak fitna yi akub xiif